moomal ko seen bopp samedi bu jot bu midi jotee ngeen koy teewlu comme ni ñu koy defee nag bés bu jot wala euh, samedi bu jot euh, man ak Biggi dañuy ñëw fii ak suñu invité dégtal leen information yi tukkee ci suñu people yi def itam buzz sur la euh, toile namoon namoon nañ ñu nag Biggi téléspectateurs yi. parce que daal man sama réseaux sociaux yaa ngi doon toj. sama Instagram sama hmm. Twitter sama hmm. Facebook. ñëpp daal dañ ma doon laaj ani bigi ani émission bi. Hmm. ma ne leen yaa nekkoon ci waajtaay tabaski. Hmm. <laughs> waxuma la waajtaay tabaski sax mais avant boobu damay nuyu téléspectateurs yi nga xam ne tout le temps dañuy teewee émission bi di 100 pour 100 buzz mais li waral absence bi nag xam naa anniversaire u démb bi nag ci la bokk jee ani joyeux anniversaire encore. merci beaucoup sama waa ji xam ne ah. vraiment elle est une personne exceptionnelle et très aussi mais xam nga rek. il faut ñu jàppale ko dund ak moom ci ni mu mel. lu dëgg mm-hmm. <laughs> dëgg la xam naa ci kanam ñu commencé rek daal di dugg ci lu web tey. Mm-hmm. balaa ñoo terminer ak euh, buzz bi xew ci internet bi maanaam tendance musicale bi mais balaa boobu dañuy nuyu rek suñu invité bu doy waar. voilà bi gi comme ni ni nga ko waxee merci encore merci aussi à toutes les personnes qui m'ont souhaité un heureux anniversaire euh, hier samedi bu jot nag duñu ci wéet benn yoon dañu fi dalal invité bu nga xamante ne xëy na actualité mën naa intéressé ñiy topp potin scandale Ouzin Keita tamit scandale rek la nekkee moom nuyoo balaa moo xam. Ah, asalaamaaleykum asalaamaaleykum maa ngi nuyu ku nekk turam santam di nuyu waa Sénégal ah, di nuyu kilifa diine di nuyu kilifa aaday. Mm. di ñaanal sama papa sama yaay mi nekk suuf. yàlla na suuf ay seen kaw. si bakka Seydina Muhammad di nuyu sama rakk mu jigéen mi nekk suuf. yàlla na suuf ay si kawam. di wax samay soppee samay fans. di wax ah, kilifa diine kilifa aaday di wax man balaa may soog a damay nuyu kilifa diine kilifa aada yi ndax ñu Sénégal. Mhm. Euh, Sénégal benn bopp la. Mhm. Sénégal ne war bokk ndey baay euh, mhm. ndax àddina am benn solo. année tànga di leen nuyu di nuyu euh, Biggi di nuyu Nafi. boobu anniversaire bu rëy waa Kal Masalla. ba nga xewlee démb ñëpp xam nañ sa anniversaire yi na mm. ndax baax am solo mm. ndax àdduna yëpp teraanga la dëgg la li nga anniversaire ku anniversaire dina tàggu mm. macha allah jërëjëf Ousseyn alors moom nag je que moom la ñu fiy dalal tey ngir waxtaan wax naa ko sànq ci lépp lu nga xamante ni moom moo ñeel actualité am sans nag dañuy ñëw directement ci waxtaan bi bi gi bu ñu demee ba ci digg wa rek nga dugal lu web tey Ousseyn ci loo maa ngi sant yàlla baax baax alhamdulilah mm-hmm. waaw nekk si liggéey bi mm-hmm. nekk daal di waaj daal mais gën nañ la gis nga génne ay yëf de nu mu demee noonu. waaw xam tam problème àdduna. Mm-hmm. du problème àdduna ndax maa ngi sant yàlla nekkam si problème waaw tolof tolof àdduna. tolof lan. Ah, sa yaay gaañu. ndeysaan. sa nga pare jóge si corona. Mm-hmm. moo tax ma gëj a génne. Mm-hmm. waaye maa ngi waaj lu bees tàkk. sama clip pare naa dama kaa doon indaale. waaye damaa xam ne tey émission bi mun ma leen gàntu. ndax sëñ bi mën a xaar a xaar suba ngoon suba ngoon. mën a tey nag foog nga forcé ñëw. def ko. waa clip bi à bientôt. loo ci woy yow clip boobu ak euh, loo ci woy li ma si woy mm. ah sama tailleur mm. mm. la def sa tailleur. ah li ma def xalaatal lu yow. Ameth Tidiane ah, mm-hmm. Ameth loo ci woy moom Ameth Tidiane. damaa woy ba tey wax ma amet yaa dama ne sama tey mooma tooñ waaw waxal loo wax ci wax bi na woy bi nag xanaa woy bi amul texte wala ay moom la damaa ne damaa ma tooñ hmm. xale yi na ma Ouzin ku la sama tey mooma tooñ hmm. mool maa ñëw maak jës na ñëw ma ma ni yaa naa si kaw seen sama moom mooma tooñ loolu laa wax <laughs> dëgg la léegi boo koy kilim baa di nga solaat tenue ya nga soloon lépp mën naa nekk hmm. waaw mais Ouzin ñi nga àndaloon lu tax waxuñu la ko par exemple yow xamoon nga ni yére bi ce catégoriquement yére jigéen mhm. nga jël ko sol ko daal di yéeg moom sur scène mhm. après nga ne tu t'es pas rendu compte de ça alors que valise euh, lem nga ko paase nga ko trier nga ko ñëw nañ ko nga xool ko ñi ngay àndal xam ko nga yéeg ci scène bi yéeg fa affaire yi indi coow polémique boobu noonu balaa nga dugg ci yeneen yi nag ci nga dëkk non euh, wan coow ma jëkk waaye yére yi si sax laa ko gisee mhm. yàlla moo tax may wax dëgg la yére si sax laa ko gisee man Ouzin Keita lu ma bëgg sol dama naan li maa sol tey moo bëggee simple mbindeef du tax ma simple. Mhm. mbindeef du tax si àdduna ma simple ma bëggee xumb mbindeef du tax ma xumb. Mhm. kon boog heure mu tamit si doomu aadama. Mhm. man ku ne aussi sonn ne. wante comme yéen a yéen est-ce que tàkk dafa am. sama tëye bi moom dafa jàpp Ouzin Keita dafa jàpp di ba nga ko ba ma waxee dama kat dama doon dama bëggoon def modèle boo xam ne naan Ouzin lu mu sol. fa la affaire affaire bi mooy. Mm-hmm. mais après coow li ci topp yëpp est que xaaroon nga ko waa Jamra wala fii. association non man man man xaatuma yële la mel mm-hmm. man doon naa sol ay réew doon naa sol ah, doon naa sol ay naawal lépp ma dama doon sol ba sol Superman. Mm-hmm. loolu sama yëf la. mais après coow li euh, association yi protéger valeur yëpp jug dal sa kaw nan naka nga ko dundi loolu ah, loolu ko fu mu yam loolu daw sama kaw yam fu mu yam si internet la yam. Hmm? waaw kenn ñëw dal sama kaw. ndax Ouzin Keita kenn du ko xool dal ci kawam ndax Ouzin Keita ñàkk fayda ñàkk fulla ñàkk pestan ba nga ban dal ci kawam hmm. damaa ñeme fu ma jëm hmm. kon daa su ma la déggee yow ñooñu dañ doon wax le vent mais ñëwuñu benn yoon ngir attaqué dégg daa si am li li nga ko déggee nii laa ko déggee lu ma sax xew si mu réew dégg naa ko dugg naa ci internet bi dugg naa ci lépp damay déglu damay damay déglu damay liir damay dégg commentaire damay gis lépp hmm. waaw lu waral Ouzin Keita ci coow rek lañ koy dégg. waaw xam yàlla suñu boppam ma ko doon xam nga tam ku yàlla yàlla suñu boppam ma ma sangat si alas. Hmm? yàlla ma sangat si alas jox ma xorom jox ma euh, masala. Hmm. jox ma lem jox ma suukar. Hmm? moo tax Ouzin Keita bu ñëwoon ne bu ñëwoon ne leen yéen ñëpp duur. bës lay doon Ouzin bu ñëwoon na toog patt bës lay doon yàlla moo dogal Ouzin Keita. yéen lépp bës la. moo tax nga gàddu Pawlish. Euh, euh, euh, plainte bu mujj bi nag noo mujjee moom gis nañu Tange Tandian porté la plainte ci coowal boroom ñaari tur laa bi borom ñaari tur yooyu noonu yëpp noo ko dundee est-ce wuy ji nga ak yëf yi fu mu. loolu man ma dara ndax ba mu naan xam laay ragal ma def. Mhm. waaye bu ma ma deful du ma ragal. Mhm. ñëpp xam nañ fi àdduna ku mu mën def fi ne nga fekk fi ne ngay bàyyi ndax ku xam Ouzin Keita Ouzin ñàkk fayda manqué wu ba nit di ko woo téléphone. di ko wax ci yenn ñàkk fayda. ah eh, eh, yaa ngi doon déglu. non di acquiescer. Oh, oh, oh, ma boo dégloo d'accord. Ah, ah, ah, ah montage ba. non boo déggoo wax ji. Mhm. boo déggoo wax ji sama wax ci suuf la nekk wax gal bi nekk ci kaw. waaw yow bu ma neexoon tey ji ma woo la téléphone. Hmm? Mhm. di wax di waxtaan yow leneen. coupé mhm. coupé sama micro la. yow yow doo ma dégg de. Eh. Ouzin. non non écoute écoute arrête ça nag. les gens non non non ça la faire. non non moom arrêter non mm. laa mi mënut a lekk laa mi ñoroon ma 100% bës waa fii lay bësee. Ouzin ndax Ouzin ngeen moom la ñu ne eh, arrêté leen ba ngeen doon invité ba tey yaa ngeen soog a invité man Ouzin kay tax ma dama émission 100% buzz. Ouzin fii lay buzz. waaw yow tâche lim la wax yëpp ci dëkk bi. waaw maa ko baal. non même bu dul tâche lim la wax sax dama bëgg. nag ah, loolu da ngay déglu da ngay déglu nag. waaw may ma ñoom àgg nga wax. waaw may ma ma laaj la li ma lay wax nii dafa dafa important. dama ni boo gisee ñu toog fii di la laaj c'est parce que loolu ça avait suscité énormément mhm. de polémique sur la toile. Mhm. les gens naan. Ousin lii la wala Tange lee la yëf yi metti Tange ba moom mu jug autosaisir dem porter la plainte hmm. léegi yow nga toog fii naan coupé nañu micro yeeg waaw ah, mel ni ku ne ci direct yow ah, am nañu benn waaw ah, ba tey wax ma coupé micro ba tey ba tey ba tey dégguma dama ne fii Sénégal mhm. yoon la xam mhm. da yoon du fen da da yoon Sénégal gi masha Allah da yoon Sénégal gi mhm. euh, daf mun seen liggéey mun seen lool affaire mu ngi si loxo yoon. waaw dem naa wujj yoon. waaw yoon laaj nañ ma. tontu nga tontu naa dugg nañ sama portable xool dugg portable pour xool gel bi kan la. man mhm. man dox man man mi dox man xaw ma gel bi. xamoo gel bi nga wuy ko téléphone ngeen waxtaan lu yàgg loolu yëpp yow Ouzin yow. ba ma gel bi di woo maa ngi si naraw ba ma gel bi woo gel ba ma woo ay fajal digguwee ko la ma woo na ma Ouzin ça man la munaas. xam nga yenn saa yi nit dina la wuyu téléphone nga def semblant doo xam kan la mun maa xam ñëpp. xamoo kan la jëw fa loolu yëpp. non non jëw ma de. dama ah, ne xamoo kan la ngeen tas kaabu ngeen tas kaabu tàlloo benn kaa am fi benn kaa ko ñàkk fayda moom xamal ma ñàkk fayda sëkk ma lu ñàkk fayda man dëkk bi man tasaaw ma asaaw ma man asaaw ma man asaaw ma sama bopp tasaaw ma sama bopp man nag tëggee ma taman tëggee ma ñaay boor ma mbóot ma kakataa ma fas ma mbaam la dama bëgg ma man xale jigéen ba may woo xamal laa dégg Ouzin Keita xam musuma wax tey laay wax. waaw non di nga wax nag. non waaye ne Ouzin Keita Tange mu ngi dugal say photo anniversaire ma ne ko ma ne ko Tange xamal ma lu ñàkk fayda ba yàq sama dara comprendre. Hmm. ma ne ko Tange xamal mu ñàkk fa ba yàq sama dara ma ci laa dagg saaga loolu maa ko def. Hmm. lu tax xamal ma def ko. ndax boobu instant yooyu ba ma ngeen waxee maa ngi la wax xam nga tam Ouzin Keita làmmiñam dafa nekk saaga. Mm-hmm. xam nga dama bëgg saaga. Mm-hmm. ma dagg saaga. wala liggéey bi doon wax naa ma ay wax ju ñaaw lu mu doon wax dégguma ko. Mm-hmm. ba ma demee wa waa yoon ñoo ma ne affaire bi coupé kale la. maanaam copier coller la. waaw coupé calé ndax nee na voix yi bokkul. yow police loolu lañ la wax. waaw police loolu la wax. ah loolu lañ conclure kon moom plainte am bi dafa nul ak lim la wax yëpp. waaw kon maa ko ak saaga bi nga saaga yow nee nga bëgg saaga. mais yow tam autorité bi ak yow la bëggee. ngay saaga ma jaxase ma jaxase na xale ni ma bëgg xam nga ah, da ngay yow da ngay ah, saaga. Ah, man saagoo ma ci biti de gisoo ma ma saaga saaga wuy ma wuy ma tey jii man Ouzin Keita saaga ma kenn ku ma tooñ du ma saaga ku ku la wax dara soo xool tàng di nga saaga ñu waxtaan ne bu ma la woon tey dina la bigi ne lu mu la wax di nga ne bigi moom di nga tudd fi ñaaw saaga. déedéet. non ma dëgg ma ngi ñëw de euh, dama bëgg dégg moom wax yooyu du ma si wax. Hmm. ndax man Ouzin Keita xam nañ maa temps ñu ñàkk fayda man temps mosuma ànd moom Bercy. mosuma hmm. ànd temps si jeunit hmm. temps sama mag la sama frère la. léegi après loolu déggante ngeen. nga ne. déggante ngeen yow ak Tange bi gannaaw yëf yi fi jàll yëpp seen diggante déggante ngeen. déggante na la. gisate na maa moom. bi ngeen gisee lu ngeen waxante. lu ñu waxante ñu yoon ça va Ouzin ça va ça va man hmm. ma xool ko si kaw sëgguma moom sëggul. Hmm. waaw ndax yàlla suñu borom dëgg la bëgg. Hmm. kon nag coow loolu jeex na daal bu ma déggee. coow daal mu ngi si loxo mu yoon. Ouzin da bëgg ay xuloo ay xeex Pawlish Mbaye xeex nga ak moom ca restaurant ba ñu tere leen resto bi nga ñëwoon kan kan teel réseau. ah réseau ba tey maa foofu sama kër la. waaw lu lan moo taxoon ngay xeex ak di wër di saaganteeg moom ngeen di saagante ndey comme saaga da laa yomb salaamin bi ngay. saaga waaw waaw waaw ku ma tooñ yow mi sa ba ma tooñee ma saaga ah. waaw. yow ba ma tooñee ma saaga song la xeex si plateau bi. duñ ko <laughs> nga ne biñ fa yegg nag lu tax tontu woo doo man ko du ma leen tontu. ah te mu yëkkati wax la lim wax. yëkkati la ba ci kaw nga ñëw di ko nuyu ma ne bu ma nuyooti. man la ma la war Pawlish. Pawlish Pawlish waaw mais moom def na vidéo saa mais moom ne leen mais daal daal. waaw ma waa kaay ma xooñ xam nit bu ko neexoon ne bu ma neexoon tey mën naa toog tey ci télé bi ne du nangam bu ma nuyoo bu ma nangam olof Njaay nee na man nit ñam man Ouzin Keita man faala ma nit ñëw ba si man <laughs> man ndax ma fay tam ñëpp ñëpp man dama Ouzin Keita téye sa loxo man duma Pawlish Mbaye mos ngeen dégg Ouzin Keita doo nañ ko fenn. Ah, yow balaa nga doo gis la da ngay naaw di tëb di ay garab. man bilaa nga maa mbett boo na boo ma ne sa loxo bi bilaa ngay wax àggu maa ngi sa kaw man duma xaal vurit sama kaw boo ma ne vurit man la balaa nga naa man la baratatatat waaw. man la Ouzin Keita mu réew. dóore yi nga loolu tax loolu. moom ah yàlla ma ko dogal. mais yow artiste nga wala fecc bale bee la jàpp ba tey wala. kii ah, fecc bale moom. waa loo jot ak ndege. ndege jot ah, xanaa tey. <laughs> yaay ji xam ngeen lan la yéen xam nga Ouzin waxtaan rek 100 pour cent amuñu nëbboo xam nga lu tax. Ah. parce que yow ndege bi ngeen di tàqalikoo ku ni tuddee nga ko tur. naan day ndiroog diw diw dee kiiwal yaramam mel ni lii laa loo di tooñ di di sànni ay trac. tey boo fi toogee ne ñu yow ak ndéggee amul problème loolu day indi tey suñu xel. Euh, fi ñëpp am euh, fii euh, ndéggee ñëpp am jaar jaar àdduna. dëgg la ndéggee maam moom mës nañ jotee. du du jotee ndax jóge naa si moom. Hmm. nekk naa si moom wax dëgg yàlla. Hmm. ki nga nekkal si ndéggee mooy bi nga ñuulee. prex hmm. prex naa naa ne bu ma ñuulee waaw. ya bëgg a Eh, tey si àdduna euh, ñëpp am jaar jaar àdduna waaw ah ñëpp fi ñëpp nekk si problème àdduna mhm. ndax ndéggéey si moom laa nekkoon ba ma nekkee si ndéggéey yàlla yàlla yàlla dogal na ma nekk si ndéggéey nekk bu rafet mhm. gaa heure mu tawee doomu am na ku ki ngay nekkal mënut a ñàkk sa jur ne woon jikko di nga gis jikko bees mën na gis jikko bees mhm. di ngeen jote nit ñaar nit mën na nekk jëkka jabar sax mun nekk sax du ñu sekk jaama salaam. Mhm. suba heure am suba seetaan am. Mhm. ñu xuloo waa du tee sama yaay sama xarit la. Mhm. dara ñaaw santoon nekkoon naa si moom benn dama nekkoon si moom macha allah ma jógee si moom bal ba tàkk. kon dala ah, dala ma damaa um de. ah naa ci diw bal bi tàkk kon moom def damaa nekkoon si moom jógee si ndege ñëw si Salam Diallo di ko tiga ñëw Salam nekkoon naa Salam Diallo man Salam Diallo si moom. saa bu wéyee ba digg ba dama daan jox ma àggale. wooyu bëri bi jox Salam Diallo bu Salam Diallo man lay jox ma àggale am na way wala da ngay taas man lépp laay lan ngay def kon man ku bëri miska laay def maa ko indi bi lan la andi woo ko fi nag Ousin da ngeen man daal jaaxal ngeen ma yow Pawlish di way wañ mbóot kaña yow nga ñëw ne da ngay def comédie man du man ma mbóot wooy ma kaña wooy ma fas ma mbaam nit laay wooy ak noppam ah ba tey wax ma du nit ah la déet man kay so ñëpp samay xarit lañ apprécié aw ma ci kenn xaar ma yàlla waaye mën nga bëgg ah yu at si mën bëgg. man ñëpp laa bëgg. Eh, waxuma ko ne ma Ouzin mën nga bëgg. dama nga man nga nawloo. <laughs> yaa ngi nekk kayita bàyyi ma at si nenoo foo yow yow laa nawloo yow laa bëgg. Eh, Ouzin yow. waxee woon moo ko wax de moo jaaxal de. moom moo tax wax ma ko. Ouzin lan moo waral loolu comédie musicale bi nga ne yaa ko créé. ndax sëñ mais yéen talent bi lan la. yoro yow fecckat nga woon. ma fecckat laa woon. léegi da ngay naaw di périer ba pare teg ci di taasu di opéra loolu mooy lan. moo ma la xanaa génne mode bu bees. mode bi mooy lan. simili fekk bi nga ko njëkkee yooku nan la. fekk Sénégal ñëpp stressé wu. ma ñëw daaj leen ñëpp ku nekk sa xol seen. noo ko defee bëgg dee ma ñaan lu ma may. lu ma may. terrain bi kër gi muut ak terrain bu nu muut. sëñ Ablaye sëñ Ablaye sëñ Ablaye Faye borom kees. maa ngi tudd à passage dëgg yàlla ki nga xam ne sëriñ piir la hmm. bëgg asamaan si suuf si mame si sama taalibe seex boobu dëkk kees hmm. nee naa kooku bu ma ko amuloon dafa kere yëkkati kere yëkkati kere mame yëkkati baax la ma ne waa léegi war kaa mité ko kenn moom si réew bàyyi ma wax samay hmm. ma boole leen li nga terrain bi ma may ah bi ma may nga may ko bigi may ko may na fi may na fi terrain. dëgg la léegi si mu réew. dëgg la léegi Ouzin bu loolu noonu yëpp jàllee est-ce que réellement euh, li ngay woy nii wala aar bi ngay def nii da nga ci compter def une carrière. Euh, très longue wala bu fet sa juste pour le buzz wala pour le fan après da ngeen di jàll. si leneen man ma soxla ma buzz buzz kese buzz kese soxla ma ko xam laa soxla euh, li may def mu dugg si xol ma ko amul laa koy defee. Mhm. bak sëñ Fallou damay woy day dugg si xol. ndax boo déggee samay woy bu dégg samay bu dégg samay comédie day dégg pride mm-hmm. doo dégg samay parole dafa riis Ouzin say nee <laughs> nga nit nga doo mbaam xoo xoo xoo xoo yow say parole la loolu muy sirifee loo way vuruj varaj varaj ah, vuruj varaj lan la waa mooy lan yow ñun xamuñu ko lu riis kay day fekk li nga xam ba pare eh, ñëw ma fi ne fii mooy Sénégal njaay ah. dëkk wax njaay ah. dëkk sos njaay dëkk inventé njaay ñu ma fi ne ku sa ndey baax sa bërëgul na dem ku sa ndey baax sa bërëgul na taxaw ñëwaat na saraax si digg aar bi caaxaan dootuma fi génne. loolu mooy yeete bi. Oh, oh, ma ma ñëw ñëw am. ba amee ñu def waxtu ñaaw dëkk fu mu jëm fu mu jógee ci sànnoo dégg naa leen wante duma leen tontu kon damay mën ni ñoom. Hmm. léegi léegi Ouzin est-ce que dooy subir lynchage aussi si mbedd mi dooy romb xale yi di la tooñ wala di la yuuxu wala di la def ni nga xeesale sa yaram bi nii itam ba mu weex Ouzin. non non maam fu mu toll nii fii ku ku bokkuñu yang yeey xam nga xam nga mosuñu sama kër fi fekk moom may diw. ah non non mais nag ku la xool démb. xoolal tey xam nga na ma démb tey bokkul xam nga démb tey bokkul ndax tey ji man man Ouzin Keita dox ma si mbedd ba kenn yuuxoo ma musta am. mus kenn kenn man ñàkk ma fayda kanam ko solo ban room di yuuxoo Ouzin Keita man Ouzin Keita kenn xamul ma lu ñaaw kenn xamul lu fay fayda. ndax tey maa moom sama saabu ma neexee sangu ba set. ma neexee sangu ba weex. ki ki mu daw ma daw ma si jaay ko diw. na ko jaay ma diw kenn a toog si àdduna Ouzin Keita maa mm-hmm. eh, maa koy jaay diw ka mm-hmm. mm-hmm. man laa. man kay taraasan. man de. kan loolu sama nekk si sama bopp laa kontaan cousin am la. oui ma mm. man loolu sama foofu maa sama yaram. yow mënoo xeesa diggi dèjà sa yam dafa dëcc. Hmm. dèjà yaa ngi ma góor laa. dèjà yaa mel ni ndaraan. man xamul nga yow benn ñaar. yow benn ñaar yow xool jigéen bi mënoo yow yow benn ñaar on ne parle pas de moi. Eh, man naa ma nga ñëw. laa ilaaha illallaah ba ngeen ba ngeen dërë bës ba te ngeen bës yow mënoo xees xamuta xamuta mënoo sol lu gàtt ndax dëgg da nga xeesa ba réew. sànq ba nga toog rek yaa ngi ma wax naa ma luy tëj réew. man la carrément mu ma ñëw sàngat eh, eh, ni nga ma lu tëj da man la carrément sa yaram yaa ngi dèjà sa yaram yëpp da nga kaa puudal. dëgg la waaw munoo sol lu gàtt munoo sol xale yaa ngi def su fekk ñu def sot. ko solee daanu. boo ko solee. di nga taf sa yaram mën nga sot. dëgg la dëgg la li nga wax yëpp dëgg la. ni nga wax yëpp dëgg la Ouzin mais man daal. jigéen laa sax su ma ko defee xëy na du garaaw mais xew mi daal. ñu dem seeti lu web eh, euh, tey njëkk mu di euh, lii web bi xëyee tey nag dañuy jiital ak euh, information bi ñu Dakar Buzz xamle ak Feeling Dakar TV muy anniversaire wu bébé ci jabar ci waaye euh, Pape Diouf nga xamante ni moom da doon célébrer lii di anniversaire am ñu gisoon fa nag artistes yëpp daal di dem wuy ji euh, massivement ku ci mel ni Bastium di Diop ak euh, ñoom Omaro présentateur TV ca si stv ñu koy souhaité ba ci loolu à l'avance nag Pape Diouf génne woon na benn son de ko première dame nga xamante ni First Lady moom la ko génneel ci labelu Subatel Music mu nekk loo xam ne aussi nit ñi xaaruñu ko woon trop ndax Pape ku ko xam xam ko ci ay way yoo xam ni lyrics sam dafa am solo nga xam ne day yeete ni ko Ousin waxee sànq en plus euh, leneen li ñu ko xamal mooy euh, tout le temps ci droiture ak euh, waxtaan ak ay fansam ndax génération consciente aussi la woote mais bébé baas aussi gis nañ contentement bi mu am ci li nga xam ne moo di surprise bi ko jëkkër ji defal ndax vidéo yi doon nañ constaté que ni defoon na tour du web ak wër li nga xam ne moo di réseaux sociaux yi mm, du ñàkk sax MD wala papa maam waaw Mhm. téléspectateurs yi vidéo bi parce que mhm. gis nañu nag ni nga xamante ni mhm. noonu la ci couple yi profité euh, week bi ñuy souhaité encore une fois un anniversaire à madame Diouf euh, euh, bébé Bass ma xam ba tey ci souhaité heureux anniversaire yi ñu ngi ci heureux ménage yi ndax kii di Barizo bu Seydina fi dafa daal di marié wu moom ca il y a cinq jours de cela dafa jëloon dafa jël li nga xam ne moo di soxna donc euh, réew mi ñëpp di ko félicité ci li nga xam ne moom la jot a def di ñu koy naan euh, heure ménage ba tey ci li nga xamante ni moo di euh, xew-xew yi am na ci koo xamante ni ñu ngi koy wax Aïda Diallo nekk fii ci kër gi ayda Diallo donc di benn femme boo xamante ni dafa bokk ci télé réalité My Life mm-hmm. boo xam ni kenn mënu ko naatable ci réew mi mm-hmm. donc moom da doon célébrer li di baptême am xale bi nag ñu tuddee ko kii di waali Seck donc mm-hmm. tudd Ibrahima Wally Waly euh, Sène ñu koy euh, wax euh, ñu ko koy souhaiter vraiment pour xale bi gudd fan ak wér donc gis nañu cliché yi nga xamante ne jot na fa am ak célébrité yi fa daje Mbathio Ndiaye ngi fa woon ak kii di njoletaal ak yeneen célébrité yi nekk fii ci Sénégal ba ci Kiné Lam ñëwoon na ci xew bi nga xamante ni donc nekkoon na comme ni ko sans limite euh, titré euh, Cheikh Wali Junior euh, fils de Cheikh Déranger ak kii di ayda Diallo bu Sen TV donc baptême mu yax bu rëy lañ doon wax. alors hmm, ba ñu paree def vraiment la mhm. une des ñi nga doon lim la fa woon mbaa boole nga ci sa bopp na. waaw yaa ngi fa woon aussi. waaw <laughs> <laughs> mu nekkoon ngénte mag lu nga xamante vraiment. est en train d'alimenter énormément de discussions mm -hmm. sur la toile du ñàkk nag moom moomu la di Aïda Diallo mhm. dinañ ko dalal fii mu toog fee fee <laughs> du ñàkk nag nga ñëw toog jàkkaarloog ñu ñu <laughs> wax ci my life bi fu mu jëm mhm. wax ci perspective yi wax ci ngénte li <laughs> ah, wax ci bébé ragal bépp ñëw wax ba fa ragal mu ñëw maa ngi nuyu ba bu baax seef bi Aïcha Aïcha bu ma jógee ci li nga xamante ni moo di information ngénte li ba tey ci mariage mais bi pa faux mariage lay doon ndax kii di ay de Adja Diallo ci Aïda Diallo lañ jóge mais ñu ngi dal ci Adja Diallo Adja Diallo di ex mannequin top modèle fii ci réew mi actuellement elle est aussi animatrice fële ca 2STV di présenter émission moom ak kii di Paco ci am moom nag dafa annoncé woon ni que dafa daldi di woon euh, marié euh, fii nga xamante ni euh, moo di fii ci Sénégal am na benn cliché bu génnoon man information bi ñu jotoon mooy ne que elle s'était mariée à un certain Evoumane donc les Sénégalais se sont duggee ci nga xam ne moo di sociaux yi ci saa si Instagram boo cliquer sur Ewoman dalay génneel Jean Patrick Ewoman ñeneen ñi nga xamante ni nag nee du Jean Patrick Jean Gervais la ñuy hésiter entre les deux personnes yi nga xamante ni euh, kan la ci jot a mais daal coow li bëri trop ba à la fin dafa daal di avoué ne que c'était une blague mais blague boobu mu daal di wax ne da koo coûté très très cher parce que internet yi dañ ko lancé ku pas marié donc ñi ngi loolu merloo leen am na ñoo xam ne ci réseaux sociaux yi dañ ko doon insulté te loolu yëpp mën naa ñàkk peut-être parce que moom dafa doon def li nga xam ne moo di fanam ñi naan da doon wut buzz ñeneen ñi naan aussi dañ da def elle s'est réellement parce que vidéo bi ñu gis ñu ko doon posté ci réseaux sociaux yi mooy vidéo bi mu solee moom du ñàkk mari ñu takk ko dëggantaan wax ko nit ñi duñ ko faale ah voilà donc man je crains ça que am na ci ñoo xamante ne dañ ko jege ñu wax ak ñoom ñoom ñu ne ñu carrément elle s'est mariée mais elle s'est mariée avec une personne du même nom de famille mais c'était pas la bonne personne. le mm. Sénégalais publié. Mm. donc y a anguille sous roche peut-être dinañ ci mën a. wër d'autres disent aussi que euh, on parle de euh, suuf am na ñu ne. Euh, waa ji moo bëggul ñu. voilà parce que waa ji aussi mais ak lu ci mën a am rek mm-hmm. bii gi. Mm-hmm. moom. Mm-hmm. moo démentir l'information. voilà moom moo ko joxe. loolu rek sa crée des aversions ci bopp Sénégalais. Adja buñ lay takk dëggantaan feetu ko rek yaa say mbokk nag. jaru nga ko yëg ndax je pense pas sénégalais euh, wuyooti ci say appel ah. mi ngi noonu de man looloo ma jaaxal. donc ah, bu jàll na ay ah, dafa jàll na. Mhm. Hmm. dafa jongo ma nga koo takk ñu ko. non non man baax na man am naa. ah léegi hmm. ko. ba tey ci faux mariage Diaw gis nañ ko mu daal di manifesté wu ci réseaux sociaux yi ne da doon wu le 13 le 13 jot nag ndekete dafa démissionné fële ca Vibe Radio àgg ca Trace TV signé fa contrat donc mu nekk loo xamante ni aussi suscité na ay débat hmm. man daal xam naa ne na bu yàggee nit ñi ku nekk bu ñu. bu dara xewee ci sa kër ñu ne la foo la parce que nit ñi ñu ngi foowee loo xamante ni euh, dafa dafa dafa doy waar daal donc ba tey ci information yi dafa am benn scandale boo xam ne nee nañ ex copine Demba Gisee moo fuité ay photo boo ko gisee ma nga taxaw daal di xëppoo saabu mel ni na ko ndeyam juree taxaw daal di dend ak benn xale bu jigéen boo xam ne dañoo flouté visage am peut-être que clip la aussi peut-être que buzz la mais daal Demba mosuñu gis sax màggam mu demee ba gis yaramam donc am na loo xamante ni Demba coow daal mi ngi noonu doomu ndeyu Penda gisee dooy waar ñoom ñaar mi ngi noonu daal macha allah. demal <laughs> doo waxtu pendoo mm-hmm. ba tey ci kaw kawteef euh, benn joueur boo xamante ni nekkoon na fële ca club bu jàmbaar taxaw daal di tàllal micro waa Senbuzz moom tam muy xamle ni que femme femme couché avec d'autres personnes au Sénégal moo tax nag mu daal di ak jabaram moom nag nee na moom vraiment dem na ba amatul confiance ci li nga xam ne moo di jigéen parce que xoolam dafa naqari ci loolu ba waral na carrière am na toog na Sénégal ñibbisi na te lépp loo xamante ni doon na ko defal jabaram mi ngi ko doon cité lu ci mel ni 600 euros la doon jëndee billet boo xamante ni da doon jóge fële ca Paris wala dem ci yeneen dëkk yi di ñëw Sénégal mu daal di koy jël en charge am na ci trop lu ko metti ci ay yëfam mooy mhm. commentaire yi mhm. ñi ko xam juddandoog moom yarandoog moom yàgg ko démenti. waaye nee nañ musul marié wu. gisuñu xale bu jigéen bi waxul dëgg effectivement donc moom. maintenant li ko animé mm-hmm. moom itam est-ce que mu toog fii déclaré boppam joueur mm-hmm. professionnel waxal li yëpp jabaram. Mm-hmm. du ñàkk ñu dalal ko fi. danañ ko fi dalal incha allah ñu daal di ci nag foog lépp di leer bi <laughs> jot na de heure booboo jot. jot na moom ku ci mel ni yaay Fatou Diagne moom exu Ahmed xalifa Niass di exu Serigne Boub borom euh, CCBM moom aussi nee na Aline Mbaye Nder daf koy delloo ay 25 ans am. Mm. ndaxte émission ba yaa woon samedi ce soir samedi ce soir hmm. yeneen télé yi nga xam ne dañoo guddee nag actuellement ñu ngi reprendre ku nekk ngay teg ñaari euh, orchestre jéem a live <laughs> te samedi ce soir Yacine Seck la Paasan Seck ak euh, man mi euh, Nafi Dieye nekk émission bu am solo boo mhm. xamante ni après gis nañu mhm. ni nga xamante ni noonu la ko site internet yi reprendre mhm. sur la toile Alioune Mbaye de nekk un grand monsieur qu'on ne présente plus sur la sphère musicale sénégalaise lii ñëw dàq lii ñëw dàq parce que moom elle vient de se remarier. aywa soit en reménage. ba ñu ngi ci euh, beneen ka boo xamante ni moom laa ñuy daal di euh, mujj tëjee mooy ñaari mujj yi benn bi nag di Iba Thiam dégg nañ fi coowal bi Iba Thiam bi nga xam ne mu ngi génn àddina ñuy ñaan suuf sedd ci kawam. donc juge du huitième cabinet d' instruction dafa boucler instruction dans instruction dans l' affaire Iba par overdose euh, ci soirée privée bu ñu amaloon fii ci Almadi donc quatre mois après l'éclatement de cette affaire magistrat d'instruction d'instruction bi boucler na affaire bi dafa bi nga xam ne moo di euh, coowal Iba Thiam bi ba ci euh, aux dernières nouvelles dañoo bëgg introduire une demande de non-lieu voilà donc Dame Amar ak Alia Bakhir euh, ont également déposé des demandes de mise en liberté provisoire mm. ci table juge bu bëgg dak ñu daal di leen cette affaire là je pense qu'on va bientôt connaître la fin de de cet épilogue parce que nag Euh, suscité na énormément de discussion waaye mhm. tam nit ñaa ngi koy topp de très près comme dafa ñeeloon ay waxu euh, kumba am nday kumba amul nday mhm. xam naa moo tax nag euh, yoon gën ci indulgent on mhm. espère que dinañu xam fa la wànnent di mu jéeg ay gëtam waaye li ñu ci mën a jàpp rek mooy jamono ji ñu toll ña nga xamante ni ñoom ñoo defoon yooyu lañ ñoom ba bokk na ci Dame Amar Alia Baxi Poupet Rigal neex ak ka nga xamante ni moo di jajaataal seen demande de liberté yëpp daal dinañu koy refuser juge du huitième cabinet bi enquête bi mm. même bu fekkente ni seen euh, avocat boobu la di Amadou Niagne daf dafa def euh, requête de non yooyu noonu yëpp rejeté nañ ko mm-hmm. su di euh, repousser parce que moom dafa bëgg liberté provisoire Rango nag ñu ngi ko mu ngi tudd faatu Fatoumata Bari mais ñëpp xamee ko ci turu Rango mm-hmm. dafa déposé li nga xamante ni moo di demande de liberté provisoire fële ca tribunal bi mais Rango nag booba léegi le 27 mai dernier lañ déggoon ni que dañ ko daal di woon tëj fële Ngor la timis fekk ca restaurant ba boobu ba léegi déggaatuñu ci benn nouvelle donc moom euh, xëy na dinañ ko accepter yëf yi ndax hmm, elle le mérite nag voilà parce que xale la doon bu doon bu doon bu hmm. doon foo foo bi ëpp nañu ko recadrer rek bàyyi ko vraiment parce ci prison yi rek doy mujj nañ ko libéré nag génn na bokk na ci ñi nga xam ne dinañ na gracier donc nouvelles yi jub na internautes yi wax nañ ci ba mu daal di rendre visite ki nga xam ne moo di Tafa ex manager de Viviane ex mari de Viviane donc mu nekk une très bonne nouvelle et c'était tout vraiment pour lii web tey ci biir 100 pour cent buzz li waral info yu bëri nag parce que dañu leen gëj a gis dajale lépp rek daal di leen koy defee dañ koo sax tënk bi. voilà la web bi mhm. xëyee pratiquement euh, semaine bi yëpp du ñàkk ci suñu yeneen i chronique ñu gën mhm. koo développé dem sax vers les personnes yi nga xamante ni ñoom la ñu gën a scandaliser sur le net. voilà leen suñu micro recueillir seeni i avis moom bi gi mhm. euh, promettre na leen ko alors Ousin. yow nag am na ay temps web bi yow daal xëyee di la gontee nga am na ay jamono. li mu ngi di def nii du wax ñaar ñetti information te boolew la ci waaw loolu am na wala loolu sant yàlla mhm. ndax bu ma neexoon suba sëñu ma def bës mhm. waaye yéen bës bëgguma ko ndax ama tolool damaa bëgg keree baax mhm. damaa bëgg Ouzin Keita ñu koy dégg si lu baax Ouzin Keita amatul ndey amatul baay amatul rakk damaa wala si même réew damaa war am sama cité suñu naan cité bi cité bërëng bëri ko. moom laa rafet sama àdduna. bëgg ma chaque jour ay coow coow bu nekk nga bokk ci Ouzin Ouzin Keita bokk ci. Mhm. suba Ouzin bu xeexul mu ngi tey suba Ouzin xeexul mu ngi xuloo bu xeexul suba mu ngi fi mhm. moom laa ba. Mhm. toog sama kër. mame lu may lekk mooy sombi sombi ko toog sama biir kër. damatuma dëkkatuma kenn gisu Ouzin Keita suñu ñàkk fayda suñu manqué. moo tax nga toxu. Mm. du toxu sax ndax tey jii man damaa yàgg dëkk sa appartement ba ba génne sama kër famille laa jël sama appartement wan wana ma fa ñàkk fayda wana ma fa manquant wana ma fa kunkan mm-hmm. da yàlla su ma mooy sutura chaque fois maa ngi fay mm-hmm. kenn mos ta sama fenn Ouzin Keita yoolu sa jabar di bañ ne moom sa jabar la loolu tam mu tëjee mu jeex sama muskaa bañ eh, bañ na eh, jaawale dama ne eh, maam jaara na njëkk a jël maam jaara na du jabar ku jigéen ki fecckat bi mooy sa jabar waa baat bi waaw nee na sëyul ak nee na barki dee ba lañ gisante di. def ak moom interview nee na sëyul ak yow nee na foo woon bës la woon Ouzin avoué la arrêté kaay ma xaw ñaar bigi sama jabar bigi hmm. sama ngi see maa ngi sama fay am hmm. xamal nekk si biir mais fanaanu leen dëkku leen loolu du jabar xamal nekk si biir waaw lu tax moom mu lay bañ yow nga koy bëgg. waaw yow tamit nag mi lay jalax di la ba nga koy jëreex di ko tëyeex. man tamit man ka ni du xool Ouzin di ka bañ. ndax Ouzin Keita. ah moom nee na ah moom bëggul bëggul nee na sëyul ak yow. man damaa neex bërëngantul bëri goog yow. man damaa neex. neexu lim la jàllax. ma dégg ma de man damaa neex laa wax man nit du ma bañ. ma yow boo mënul jëkkër ñaar ma ko yàlla boo mënul jëkkër yow. da nga may bëgg. dëgg la ñun sax bëgg naa la. waaw man ñëpp a bëgg man damaa saf. Mm. damaa saf sàpp ku ma. kii Ouzin man yi ngay wax noonu yëpp di entrer dans les euh, ex euh, di extrapoler. man waxu jabar bi lan la dama bëgg ñu tëj rek émission bi parce que bi du ma si wax. di wax lan ngay yuuxu ndaw si nee na nawloowu la sëyul ak yow. Ouzin waaw yaa war a takk jabar nga mën ni ndaraan. déglul Ouzin nga ni oto à péage nga mën Ira Touba yaa war a takk jabar bigi. Ouzin <laughs> déglul yaa war ay bigi takka jabar bigi yaa war a takk jabar nga mën ni déglul bi déglul bigi naa xaw ma ay bisu pataar xam nga lu ma wax. bigi yow kii dama bëgg ñu tëj bigi xaaral xaaral. na fi waaw waaw non non garaawul jabar mu tergiversé atterrir ci man li ma wax dara neex. dama ne non non dama ne. Ouzin yaa ngi sëy ndaw si wala sëyu ndaw si. maa ngi sëy ndaw si d'accord léegi lan moo tax léegi lan moo tax ndaw si ndaw si moom. suñ nee ko waaw may ma rek may ma non attends non nee waaw. xam nga ci sa waajur nga compté te yàlla ñaanal bi ngay ubbi. ak sa akulaahi taala loo wut ci àddina yàlla boo ko am Ouzin yaa ngi sëy ma ma sama jabar ma ne ndax yaa ngi eh, doo doo doo dégg doo dégg ma wax la maa sama ñu ngi sëy waaye ñu nekkoon ci ay problème maa moom hmm. léegi lu ah, leen jotale woon non ba ba day tas nde lu leen ah, jotale woon da ngeen nekkoon ci problème maa moom da ngeen bëgg kaa da ngeen dégg léegi lu leen jotale woon mu jeex mu jeex doo doo dégg waaw sama jabar waaw tas ngeen doo dégg ngeen bëgg bës fii si ambassade bu fii lay xewee waaw waxal mu gaaw tamit sama jabar. waaw dama dem sama benn néeg. waaw fekk may waxtaan sama benn jigéen. waaw sekkul dara kooku sama xarit la. waaw xam nga dafa kolan dafa ñëw tëdd sama kaw. du tëdd sax kooku dafa ñëw wéeru sama kaw ñu waxtaan maa moom. sama jabar ñëw dugg si yem si sonko kooku xeex xeex bu rëy. Ah, infidélité lañ la jàppee. maanaam dafa ñëw. maanaam mooy mooy fekk la nga dafa ñëw kooku dafa ñëw comment mun nebante ko xamantam comme nga nekk sama jigéen yow sa xaritu jabar lan lay tëdd sa kaw sama xarit jabar sama jigéen la waaw maa ngi ko nuyu à sama mm-hmm. jigéen sama xay la mu def la nee na gaale def lan expliquer bàyyi bigi bi expliquer ñoo toog di waxtaan maamoom doo dégg sama sama jour anniversaire na sama dégg ñu waxtaan mm-hmm. xam xam nga xam nga journaliste mën a dul ah non non eh. écoute <laughs> eh. arrêté sa ay yéen nag ngeen a yabaate waaw non non waxtaanee wuñu loolu waxtaanee wuñu loolu loolu man je n'accepte pas que tu kon yéen xam nga lu leen fen kon. dégg nga ah, ah bés ngeen wax léegi na Adja Diallo nangam nangam. kooku kon yéen duule leen. déglu déglu ah Ousin sa micro jeex na papa ma ba fayal ma fayal ma micro Ousin parce que nag mu ngi exagéré tu ne peux pas permettre. Eh, non non day déglu doo nekk ci maison de presse ñu lay defal une émission eh, sérieuse eh, nga toog di traiter toute une corporation de menteur loolu duma ko nangu. déglu déglu rek yow da ngay exagéré nekk lu ñu la waxal yaa ko def. sama sama jabar jigéen ñu toog. sa jabar dalaa bett ak jigéen fase la. fase ma de. Ah, yow ku tëdd sa kaw nii. non ku tëdd sa kaw nga solo yére. ah su yére laa soo kat soo ma yére yow kon sos kan sama jabar ñu daal di dem xool rek. Euh, musique mujj bi tànn sa émission jeex na ñu dem sama jabar tasul tasuma. Mm-hmm. maa ko woon baa maa ngi ma ko baat. ayca dem xool leen clip bu bas Thioung bu bees bi moom ak Samba Peuzzi def pàtt la ñu woote. Ousseyn def bu ndaw rek bu ndaw daggit rek dimbali ñu maam biram ñu daal di xool dellu si balaa kii di naax saay. Sambapazibacum duo toxique boo xam ne cocktail de fruits de mer laa ko tuddee. Mm. bu ñu day def buzz 1 million 700 000 vues en deux semaines de publication aimé par 40 000 depuis le 31 juillet 2020 donc mu daal di def euh, patt day génnee nag li nga xam ni moo di mixtape moom Bastion kii di Samba Peuzzi aussi na loo xamante ni moom ndongo loolu ko tuddee mm. euh, en tout cas daal euh, xam naa dinañ ci dalal kenn ci ñoom ñaar bas jaara dimbali ñu ci moom ndax mu ñëw toog jàkkaarloo ñun wala Samba Peuzzi ñëw rek ñu waxtaanee incha allah ñoom ñëpp ñoom ñëp dinañu dinañu dinañu ñëw mm-hmm. ñoom ñëpp dinañ ñëw incha allah ndax 100 pour cent buzz la ñu bëgg ñoom mooy émission bu mag bi nag fii la mm. lépp di leere mais dans le respect mm. et la discipline ndax mooy euh, ndayu lépp mm. waaw sa émission jeex na eh, damay damay ba ma tàggatoo eh, damay nuyu Mata suba teer ndax euh, ma Mata suba teer wax dëgg yàlla tabaski bii moo jëkkati xal ko waaw jëkkati noonu nekk si la yàlla dëgg la bëgg nekk si la waaw moom njëkk yóbbu ma tukki moo njëkk yóbbu si si nit Euh, Matas Wateel sama nit sama xarit la. Mm. ku baax la. dëgg euh, mm-hmm. yàlla. di nuyu sama euh, sama sama frère. non sama frère hélas. di nuyu sama doom ba pare di nuyu waa Kaolack di nuyu Assane Kaolack di wax Assane benn séeréer moo xewle borom wax nangaan man Ouzin Keita maa ngi naan xam ba tuuyu loo dund doyul dundal cent onze ans sans ordonnance. ba ko wax nangaan kenn du yow. di wax dëgg du neex. ñuy rafetlu bu baax. Euh, euh, mën naa dem wala mën naa dem. xaaral ñu ngi rafetlu bu baax. Euh, damaa tàmb damaa tàmb yéeg. ñuy rafetlu bu baax sa disponibilité euh, ñu dalal la fi ci tey euh, samedi 22 août 2020 euh, samedi prochain incha allah dinañ fi ñëwaat bi gi ma bàyyi la nga tàggoo rek laata mu ñu may performance ndaw ñu tëj ki nga xamante ne moom a abiyé di Xarim Diagne borom White House chéri mm-hmm. Binta ma koy nuyu bu baax dina la abiyé donc surtout si dama ko fàtte indi ak sa ñaw mm-hmm. ma koy sant di ko gërëm di souhaiter un joyeux anniversaire à tous les natifs du jour ak ki nga xamante ni moo di Matar Subatel da doon anniversaire donc